نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى jërëjëf Serigne Ibrahima ñu ngi lay dalalaat euh, ci sans limite di la nuyu di la ziar di la nuyu sant ci sans tey wax na rek euh, dootuñu la présenté xëy na internet yi ndax bokk nga ci ñi nga xamante ne nii euh, dañuy bëri lool lu ñuy toog di saafonte ci li nga xamante ne moom ngay yëngu mu mel ni rek dinañ waxtaanee wàllu actualité laata ñu dugg rek ci activité yi nga xamante ne nii moom ngay def laata lool nag ñu bàyyi la rek nga nuyonteeg internet yi. Eh, alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatulah wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam eh, ñu ngi sant yàlla bu baax di jul si bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm suñu sëriñ si Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu di ñaanal xalifa généraux yi nga xamante ne ñu ngi fii Sénégal eh, yàlla may leen kattan may leen wér ba mission bi nga xamante ni ñu ngi si yàlla yeggale ko fañ soxla bi jaar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa naa ko xamal démb actualité la ñuy tàmbalee suñu euh, waxtaan tey nag mu am loo xamante ne nii il faut rek wax ci. Mm-hmm. te mooy rek li fi xewoon euh, ci euh, ay bés yu weesu. Mm-hmm. mu mel ni rek gis nañ fi ab waykat boo xam ne xëy na ñu bëri dañoo jug rek jàpp ni dafay def li nga xamante ne moo di promotion borom ñaari tur yi. fi ci réewum mm-hmm. Sénégal ba tax na nag ñu bëri daal di jugoon rek daal di koy tëkku. ca la muy def. moom it mu daal di rek jébbal ay plainte yoo xamante ne nii mën nañ ci lim mhm. Oustaz maxtar Sarr bi nga xamante ne nii joxoon na ko plainte mhm. ngir rek kàddu yi mu génnoon mhm. di ko wax euh, waykat boobu ñu bëggoon a xam rek yow lan mooy sa kàddu ci mbir moomu ndax dafa am ay conseils yoo nga xamante ne moom ngay joxe ki nga xamante ne moom moo di euh, waykat boobule wala lan lay doon euh, alhamdulilah macha allah question bi am na solo ñu ngi ñaan yàlla tontu ci tontu mu xam ne kenn duñu ci jéppi Euh, waykat boobu wax dëgg yàlla gis nañ actualité bi ni muy doxee euh, ak yi nga xamante ni xaw na si yëpp gis nañ ko man nag bu fekkoon ne dama nekk conseil am lu ma koy conseiller euh, mooy plainte boobu noonu nga xam ne da ko jëloon jëmale ko si kilifa googu di oustaz Mokhtar bu fekkoon ne man maa koy conseiller dama koy wax ne ko plainte boobu ko déposé parce que sama gis-gis mooy Mokhtar da koy dimbale di dimbale ñi nga xamante ni ñoo nekk ci gannaawam. mooy bu fekkee ne moom luñ koy tuuma eh, moom nekkut ci eh, na ci jéem a génn complètement te itam na taxaw carrément ñi nga xamante ni ñoo koy félicité ci loolu moon leen ne li lii ngeen may félicité nekkuma ci Baye Fall gi nga xamante ni moom lay wootewoo taaliba Serigne Touba bi nga xamante ni moom la wootewoo mu dëggal loolu xam ne suñ mag ñi lii nga xam ne tey moom la ko nit ñi di tuumaal mag ñi ci loolu lañ nekk di ko xeex ba tey seen doomi seen seeti ci lañ nekk ba léegi kon Muxtaar si yoon boobu noonu rek la nekk lam la la Serigne Touba doon xeex la Seydi Hadji Malick doon xeex la Cheikh Ibrahima Niass doon xeex euh, Muxtaar si tànk yooyu la nekk euh, te ba tey man dégguma benn yoon Muxtaar euh, jël kàddu gu ñaaw tuumaal ko ko déedéet déedéet man dégguma ko parce que maa ngi suivre Muxtaar bu baax a baax maa ngi suivre ay actualité am dama koy topp di ko suivre parce que xam naa Muxtaar xam naa ko xam famille bu mu bokk xam mooy kan xam dëggoom xam ak taalibeem kon bu fekkee ne tey Muxtaar wax na gis-gisam ci yu demee noonu Euh, man su ma ko doon conseillé duma ko conseillé na ko na na def plainte bi déedéet waaye nag dama koy conseillé na taxaw mu leeral nit ñi bu fekkee ne mu ngi ci ba tey loolu moom la concerné digganteem ak euh, boromam la waaye nag ndaw ñi nga xamante ni tamit ñu koy ñoo koy bàyyi xel moo tax nit ñi génn di ci wax di génn di ci wax dégg nga kon moom conseil am baaxul ci côté boobu noonu ñi ko wax na ko demal nga plainte Muxtaar wala demal nga plainte euh, kii mag ñi nga xamante ne dañoo nekk ci lislaam bi di defendre loolu ñi ko conseil conseil boobu seen conseil baaxut kon nit ki da nga kilifa danay ànd ak ay nit fekk ña ka cay wax dëgg ñuy néew la léegi nag li lay dimbale nag mooy nga bàyyi xel sa bopp te itam lépp lu nga xamante da nga koy def nga xool ñi nga xamante ni yéene nañ la jàmm bëgg nañ la lu baax nga ciy diisoo ak ñoom waaw kon wax dëgg yàlla loolu de euh, li may conseil Wally Seck man mooy na bàyyi xel boppam bu baax xam ne bëri na ndaw ñu ko topp bëri na ndaw ñi nga xamante ni ñu ngi bàyyi xel ci moom euh, te ndaw ñooñu noonu njub ak lu sel rek la ñuy ci ñoom moom nag ñi ngi yaakaar ci moom loolu ñi ngi rafet njortu tamit ci moom ne li mu wax taxaw carrément ne moom bokkul ci yooyu mosu lekk ñi ngi rafet njortu ci moom waaye nag na bàyyi xel doxalinam euh, ni muy solo ni muy waxee ni muy doxee na ko bàyyi xel parce que dafa am ñu nga xam ne dañ ko yaakaar yaakaar naa ne tey ñooñu tey bu ñu demee tey ba taxaw di ko di ko di ko kii maanaam waxuñ na moom carrément moom la waaye nag ni mu leen di mayee doole ak ni mu leen di euh, xaw ma nu ñu ko waxee promouvoir xaw ma euh, loolu moo tax gars yi di génn di di wax ak moom. Mm-hmm. kon dañ koy dénkaloo rek mu bàyyi xel ci loolu. Muxtaar mm-hmm. euh, moom dama koy encouragé waaw dama koy encouragé parce que bu nekkutoon ci lii danañ ko danañ danañ danañ danañ xoolaat ay mbiram daal maanaam taxawaay bi mu taxaw nii tey ci lislaam bi. taxawaay bii mu taxaw tey Sénégal ak di défendre l'islam di defendre mag ñi bu ci nekkutoon dinañ ko ko laaj parce que man xam naa ko bu baax xam frère am euh, xam euh, mu nekkoon ko xamante ko soppoon suñu kilifa la xam leen bu baax kon moom su nekkutoon si lii dinañ ko ko laaj kon loolu rek laa am lu ma ciy wax. Mhm. mu doon dénkaane yu am solo bokk na itam ci euh, wàllu actualité affaire Koukandé. Mhm. yaakaar naa ne jot euh, waxtaan bu ñu mhm. euh, mel ni rek la mu waxoon mooy rek jox na rendez rek képp ku bokk askanu Sénégal. ci jouru Tamxarit. ca 5 heures 17 heures mu daal di xar géej ji. Mhm. Euh, ñu invité ko tamit ci benn plateau. mais mhm. ñu bëri jàpp ne def na fa ab kiraama ginnaaw bi nga xamante ne nii am na ci benn chroniqueur bu ko ne bu fekkee ne li muy wax dëgg la ci moom mu fay lamp yi. Mhm. loolu noonu tey ji ak karaama boobu noonu yow ndax nga ko mën tekkee. Euh, man li may wax te yàgg koy wax mooy bépp karaama bu nga xamante ni yaa ngi koy wane publiquement rek programme mu ngi si suuf fan moo ko ñi koy wane ci télé bi di wane naa man mën naa lii di jëlal di dal naan dama lay soppandil xaalis wala dama lay defal nii wala détails yooyu yëpp ay fen la fen moo ko lal euh, wax naa sama benn sortie ma ne ñi nga xamante ni tey ñi ngi woote ne ñoom dañoo am ay karaama di ko wane ci média yi di ko wane ci télé yi waaye waay waaye lillaahi wa rasuuli nañ ma ci boole ak kenn ci benn plateau donte télé bu gën a suufee la ci télé yi dañ ma boole ak moom ci benn plateau bu defee karaama moon ko ne li nga def ni fan la te dinaa décortiquer mbir mi fi mu commencé ba ba ba ba lim def di wan nit ñi ne lu yéema la. waaw loolu naka tekkee donc. ci maanaam euh, karaama nekkut lu nga xamante ni dañ koy dañ koy préparé bépp karaama boo gis ñuy préparé rek fen moo ko lal man tey su ma demoon tey ci àll bi su ma demoon tey ci àll bi nar faa dajeeg lu nga xamante ni lu may lor la. te lenn rek laa yaakaar ne moom laa ci mën a génne mooy alxuraan ji nga xamante ni yàlla dénk na ma ko mooy benn aaya bu may jàng ngir yàlla musal ma loolu est que dama koy programmer bu fekkee dama dugg si biir géej gi nar a lab lenn rek laa mën a def alxuraan ji ma yàlla dénk wala euh, tur yàlla yi nga xamante yàlla dénk na ko ma jël ci lenn def ci li ma ci war a def yaa ngi dégg jaar ci biir ndox mi dam ndoxi samay soxla ñëw loolu est-ce lu ma programmer la doo lu ma programmer waaye nag cër bi nga xamante ne nit ki am na ko ci yàlla la tey boo xoolee tey 93 1993 fay si Saalum euh, am na benn kilifa gu mag gu ñuy wax euh, Seydi mun taxaan Ndaw jaar na ci géej gi te ba mu fay jaar dafa jaar ak coobare yàlla te loolu noonu 93 la yàggut ñi ko fekk woon ba léegi ñu ngi fi ndax dafa nekkoon lu mu dafa nekkoon lu nga xam ne ko programmé damay dem damay jaar ci géej gi déedéet parce que dafa mbir bu amee rek kilifa goo gis mu def mbir mbir moo tax mu def ko kon yooyu yëpp ñuy programme di woote nit ñi naan ñëw leen ñu def lii ñëw leen ñu def laa loolu yëpp ay fen la. xam nga sëñ fen moo ko lal. Euh, euh, dañu nekk ci seen seen seen liggéey bi en tout cas. Mhm. Euh, bëri na ci ñoo xamante ne nii xëy na ku nekk di bàkku ni moom moom moom moo fi mën. Mhm. est-ce que tey jii nii Kounkandé tënkuwul ci wax guñ naan ku fi mën da ngay def ñu gis. Mhm. comme ça. gis nga karaama yooyu ngay wane. karaama intéressé wut nit ñi lay ñëw ci yow xam nga nit ñi lan moo lan mooy karaama bu gën a rëy pour nga def ko ci nit ñi mooy nga fexe soxla bi ñu lay tawatal yàlla nga fexe ñaan si yàlla yàlla faj ko loolu rek doy na karaama mais lu dul loolu duhut karaama ay fen la tappale moo ko lan dégg nga li ma gëm man mooy karaama yi ngay def karaama bu yow après yow lan la la apporter yow toog toog nga ci télé bi ñu fay làmp yi man lan la ma apporter toog naa ci tele bi di wane ne nii damay soppandi xaay damay def nii loolu lan la ma lan la ma lan la ma a yokk ah, waaw léegi léegi léegi li ma gëm man mooy nit ki sëriñ dëgg dëgg dëgg dëgg ak ñaan ko ti li ma gëm ne mooy sa karaama mooy soxla bi nga xamante ni Mariam mii ñëwoon ne tawatal la soxla bi nga téye sa kurus dans vingt quatre heures wala dans douze heures de temps yàlla faj xaajo man loolu laa gëm ne mooy karaama ab sëriñ kii woote na man ab sëriñ laa ab borom xam-xam la ab nitu yàlla laa wulli yàlla kaamil laa wulli yàlla ay karaama yi nii kersa la si wulli yàlla sa def ko yow ñaata nit nga fi gis ñu nga xamante ne seen wilaaya leen ko est-ce que mos nga fi caaxaan yi te pourtant nag yii fi caaxaan yi détails yi gars yi def nii man ba ma koy man boobu maa ngi ci daara ji am na yenn yu sew sewaat yi nga xamante ne damay gis gars yi di ko def ci télé bi rey daf may jàpp sax ay jël baraada teg ko gisoon nañ ko fan yee yaa ngi dégg ay jël di ataaya si carton loolu dara dafa nga xamante loolu yëfi gune la waaye du xut yëfi sëriñ sëriñ karaamaam mooy na fexe soxlaa nit ñi di faju ca am na loolu laa gëm ne euh, yi nga xamante ne ñoo koy faral di ko invité. Mhm. muy di ko xamul mhm. euh, loolu tamit yaakaar naa ne war nañ cee euh, xam nga tey Sénégal tey dañoo toll ci jamono boo xam ne nit ñëpp li leen yitteel mooy xaalis. ba kii fen sax danga koy jàppale si fenam pour mu jox la dara waaye bàyyil xel ne tey yow nit ki ngay euh, nit ki ngay favoriser fenam bi am na ku nga xamante ne mu ngi koy lor te loraange boobu mu koy lor yow am nga ci part de responsabilité am na ku nga xamante ne tey boo toogee ak moom rek ngeen di waxtaan mu law mu génn ci média bi ni ñuy gis ko yaa ngi dégg dañ naan ah kii de mu ngi toog ak diw kon de kii ku baax la te fekk diw moom muy toogoon ñoom ñaar ñooy kenn baaxut ci parce que mu ngi mi mi ngi dooleel fenam mu ngi koy dooleel si kaw nit ñi nit ñaa ngi yokk seen yaakaar ci moom te fekk lañ koy yaakaaree dana nekkut ci moom moo tax man gëmuma di ànd ak star gëmuma star di la dalal gëmuma ngay toog ñi lay ñi lay ñi lay ñi lay publicité ay détails yu nga xam ne yooyu noonu mooy loolu man yooyu nekk ma ci te du ma ci mos nekk mm-hmm. dafa am lu nga xamante ni du cëru taalibe bul nangu mukk ñi lay jël di la manipuler di la fen fenloo taalibe loolu du cëram te fen dafa nekk lu nga xamante ni ku nekk xam na ne ak nit lu mu néew néew néew néew xam-xam xam na lu ci fen te ñun li ñu nekk nii c'est simple dafa simple lan la mooy yàlla dimbal na ne am nga gëstu am nga tur yàlla bu nga xamante ni téye ko yàlla dimbali na la am nga ay secret yu nga xamante ni gëstu nga ko si wàllu yi nit ki bu ñëwee ci yow dimbali ko ci loolu tur yàlla bi nga yor téye ko nga ñaan yàlla soxlaam faju li nga xamante ni yàlla dimbali na nga gëstu ko ci la saraar xam ko si saare alquran bind ko jox ko mu dem sangu feebaram wér mais lu dul lii nii sëriñ bu ci nekk yaa ngi ciy fi caaxaan am na yu détails yu bëri ay afrique caaxaan ay afrique tappale bëgg dërëm bëgg ñu naan diw moo fi nekk bëgg ñu naan kii moo fi ëpp bës naa nga mën nga ban njëriñ la te boo xoolee boo delloo gannaaw samay waxtaani démb dama daan wax mu ne dama toujours damay wax ma ne bës bu la jaral dara am bës bu la jaral dara dara fexeel nga nekk ku sell rek gis nga nit ñi li leen di indi ci yow yow yaa koy liggéey. loo fi wax mu nekk wax ju un jour viendra di nga ko rëccu te yan nañu yàlla musal ci fen nga xamante ne ëllëg say doom dañuy toog jàkkaarloo seen baay di fen ñu xam ne seen baay ji day fen yan nañu yàlla musal ci loolu. Euh, mu doon kàddu yu am solo ñu fàttali ñu toog ak Serigne Ibrahima fii ci Gàddaay ngir mun koo jot ci 77 035 17 72 ñu tëj nag wàllu actualité daal di dugg ak yow euh, ci yi nga xamante ne ni moom ngay yëngu ñu for nag ci yow béy ni li ngay euh, li ngay faral di tëju dafa bari. ñun nag yàlla daf ñu dimbale suturaal ñu ñu nekk ay doomu daara teela a ñeme kurus lool ñu yar ñi si kurus ku xam suñu kilifa xam ko ci loolu xam ko ci kurus. xam ko si sell xam ko si njub ak ragal yàlla te toujours li ma daan dénk mooy soxla bu la nit mëntu tawatal bu fekkee ne nekkul sa maîtrise rek ne ko nekkul nekkul sama dox ci loolu waaye nag boo gisee ñi tëju tëju yu bëri euh, ñi ñuy sant ñaan dafa bëri te comme ñaan yàlla la ñuy wax nag il faut ñuy wét ak suñu borom bi di ko ñaan soxlaa nit ñi ndax mi man di faj seen soxla yi parce que yaakaar dafa rëy boo xoolee nit ki nga xamante ne dafa nekk ba bitim réew mosul la teg bët dafa la gis sopp la dafa la gis yàlla daf cofeel seen diggante yéen ñaar mu wóolu la am confiance yow yëkkati benn fukki dërëm yónnee la ko na la ñaanal ma kook noo mënti def war ngaa tëju bu dee ne benn fan la bu dee ne une heure de temps la bu dee ne deux heures de temps la bu dee ne de temps la nga ko tëju laajal ko soxlaam yàlla soo paree la nga war a def ci moom nga def ko ci moom waaye lu du lii sëriñ bu ci nekkul yaa ngi si fi caaxaan parce que li may wax mooy yaakaar dafa rëy te ñii yaakaar ñii nañ fexe bu buñ def seen yaakaar ñii nga xam ne dañuy ñëw pour faslante ak ñun colère bu ñu fexe ba fecc colère nu fecce ko si ñun parce que taalibe li ñu xam ci moom euh, mooy dëgëral colère mooy njub ak ragal yàlla tegee si njub sax si njub di dimbalante nit ñi si seen soxlay te bañ di woo ci ay fen taalibe du fen fen war nañ ko séntu si keneen ku nitu nitu nitu nitu daara fen war nañ ko séntu si keneen ku dul nitu daara parce que daara ja lañ lañ lañ lañ ñu defal ci daara ja si yar buñ ca def buñ dem ba nekk mag ba màgg Euh, commencé di dawal ay oto commencé di dëkk ci ay appartement dëkk ci dëkk taax yi euh, fen boobu gën a si ñu buñ ko nangu buñ nangu loolu nañ nekk lañ lañ lañ lañ lañ juddoo lañ yaroo lañ màggee nañ fexe ñu nekk ci loolu ba ñu dugg ci seen détail waaw sëriñ bu ko ciy def rek da gis ne euh, pour nga yegg fa nga soxla du yomb waaye sëriñ bu nga xamante ni yaa ngi yem ci la nga xam nekk ci la nga war a nekk pour nga yegg fa nga soxla dana yomb lool waaw dana yomb Euh, ba tey ci pàcc boobu da nga yëngu ci wàllu ñaan mu bëri tamit ñoo xamante ne nii xëy na dinañu dem ci sëriñ ngir mu ñaanal leen waaye yàlla du def xëy na mu antu loolu lan moo koy indi. Euh, ñaari mbir nag mu ngi ci dama koy wax toujours mooy bu ci njëkk dama koy euh, commencé si sëriñ bi am na si sëriñ bu nga xamante tey soo ko santee ñaan amaana yitteem yi xeggut si mu taxawal taxawaay bu ma sëkk te li may wax mooy. nit ki bu la yaakaaree il faut nga am yitte taxawaay bi ngay taxawu sa bopp yow nga xam ne yaa ngi sentir sa yaram bi lu nga xam ne bokku si nga taxawu sa bopp ba wér nit ki bu ñëwee ci yow ci feebar fexeel ni ngay taxawoo sa bopp di ko taxawoo sa njaboot nga taxawoo ko ci noonu beneen bi mooy ki nga xamante ni tey euh, dafa ñëw si sëriñ bi moom itam na am yitte am pastef gu mat sëkk ba ba muy jógee këram di ñëw si sëriñ bi ne ko dama bëgg nangam na am yitte yi toujours topp action gis nga nit booy ñaanlu bul ñàkk fayda nga jël sa xaalis jox ko sëriñ bi te topp action tey da gis ñu bëri tey dañ naan ah man de sëriñ ba ma ci demee nanga ma nanga defal na ma nanga gisuma ko mais léegi nan ñëwee si sëriñ mu jox la lim lay jox benn yoon ngeen gisante yéen ñaar wala yow da nga yaakaar ne nit ki bu ñëwee ci yow rek ci nga ñaan li may wax man man ñaan damay wax ne ñaan continuité la te soxla soo koy ñaan ku nga xamante ni xamu euh, kii nu mu tuddati ku nga xamante ni euh, am na ko te du ko jeexal te ña fay ñaanee bëri da ngay fexe nga sax ci mbir moom taxaw ci li ngay ñaan taxaw ci buntam yonent ci yàlla Muhammad di ñaan soxla bi soxla bi mën a faju waaye salaamaaleykum maaleykum salaam sëriñ bi jigit li nga koy jox jox ko mu jox la mu lay jox nga dem pare ci danaan ah maa ngi xaar maa ngi xaar insistel ci sëriñ bi te nga topp action man damay bëgg nit ki topp action say mbir nga may xam fi mu toll nga may wax sëriñ bi ah li nga may ñaanal de maa ngi gis li nga may ñaanal de gisuguma nangama nangam nang yooyu dama koy bëgg parce que loolu day dimbale sëriñ bi ñaan mais bu fekkee ne yow sëriñ bi din bu fekkee topp action tim pour mu ñaanal la day day jafe léegi nag ñaar yooyu nag il faut ñoom ñaar ñu dimbalante kenn ku ci nekk dimbale sa morom sëriñ bi ni muy dimbale nit ki mooy yaakaar gi nit ki am ci moom mu fexe yaakaaram bu mu tas mooy na la yaakaaram du tase mooy na fexe mu ñaan bu ñaanee yàlla yàlla dana ko may amul bu yàlla du mayee te amul soxla bu rëy bu rëy fa yàlla soxla rëyut fa yàlla bu fa amul nag yàlla amul amut ci moom waaye nag li may dénkaane man toujours ñaan buñ koy def nañ koy jaaree ci buntam mu yontu yàlla Muhammad sallallahu si nga foofu noonu buntu boobu noonu bu ñu fay taxaw di ñaan soxla soxla ba day faju waaye nag ñaan bu fen lal du faju yàlla dafa lay seetaan rek bu fekkee da fen nit ki programme teg sa programme ba mu jox la xaalisam pour nga faj pour nga faj soxlaam da ngay sonn waaye soxla bu du moso fajo ba ilaa yawmi diin kon nañ bàyyi xel loolu ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk si yoon bi ak ñi nga xamante ni carrément ñooy ñëw di ñaandu ci waaw am na solo euh, sëriñ Ibrahima euh, comme li ñu koy faral di defee rek kàddu yi euh, matale na ñu ngi ci jeexintalu émission bi nag ñu bàyyi rek nga nuyu nga joxe say kàddu yu mujj daal di fàttali adresse yi ak. man toujours sama dénkaane li may denkaane mooy ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci wàllu yi nañ bàyyi xel suñu bopp te di bàyyi xel njaboot gi njaboot gi nag mooy ñan mooy ñi ñu yaakaar yaakaar na seen xaajo mën nañ ko faj nañ di téye suñu kurus di ñaan soxla yi nañ di sonn suñu kurus nañ di sonn si sangat yi nga xamante ni dañ leen koy jox nañ di bañ di naxante ak ñoom nañ di euh, jël suñuy jéego di jël suñuy jéego di dem si àll bi di wuti ay tegtal nañ di fexe di taxawu nit ñi taxawaay bu mat sëkk te li may wax toujours mooy gis nga fen bi ngay fen di programme ba nax nit ki ba jël xaalisam coono boobu noonu gis nga ji nga ji nga nekkul si lu dëgg dafa métti de gis nga coono boobu noonu tey boo ci boo ci boo ci taxawee nga téye sa kurus une de temps nga téye sa kurus wallahi azim coono boobu ngay coono pour nax ni ki coono boobu boo ko téyee ci nit ki yàlla fa caajoom nañ fexe ñu góorgóorlu ci loolu ñu jël ñi nga xamante ni ñooy ñëw ci ñun ñu daf leen frère daf leen sœur daf leen doom su pour ñu taxawu leen ba seen xaajo fajo faju dina yomb salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu waaye Saalum di ñaan yàlla nawet bi yaan yàlla barkeel ko bi jaar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam نويت صوم غد رمضني هذه سنتي فارض